fi nga xamante ni boo ubbee kaamilu alquran bi sa côté droite sa côté ndeyjoor saar bi nga xam ne fa jiitu muy sóoratul fatix muy sóoratul fatixa sóoratul fatixa moom la ñuy commencé tey sóoratul fatixa mooy saar bi nga xamante ni moo njëkk ci alquranul karim ci alquran laa wax nag ci tartib mushaf yi ci kaamil bi moo si jiitu nee na bu dee ci wàcc alquranam iqra moo si jiitu développé woon nañ ko ci numéro bi passé suratul fatiha sababu nuzul bi wala sax balaa ñu ñëw ci sababu nuzul bi suratul fatiha dañuy njëkk a ñëw ci ndax Màkka la wàcc wala ndax Médine la wàcc ndax ci alquran dafa am saar yoo xam danaan saar yi saari Màkka la saar yi saari medin la naka la ñuy xamee ne lii saari Màkka la wala lii saari Médine la règlement bi nii la mooy bépp aaya walla bépp saar boo xam ne bi ngay wàcc fekk na yonent bi salaa salaam gàddaayagul jógeegul Màkka dem Médine saar boobu ak aay yooyu dañ koy considéré comme saari màkk ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba gàddaay ba pare nag ba dem Médine bépp saar bu wàcc wala aay bu wàcc dañ lay considéré comme saaru Médine donte sax màkk nga wàcc parce que am na yenn saar yoo xam ni ak yenn aay yoo xam màkk la wàcc mais dañ leen di considéré comme saaru Médine parce que boobu fekk na yonent bi sallallahu alayhi wasallam gàddaay na ba pare comme par exemple tey bi yonent bi ñëwee di ubbi màkk diir la mu nekk màkk am na aay yu fa wàcc am na saar yu fa wàcc mais dañ koy considérer comme Médine léegi saar bi na di sóoratul Fatiha boroom xam-xam yi dañ see xaajaloo ñett ñii ne màkk la wàcc ñii ne déedéet Médine la wàcc ñii ne déedéet ñaar yoon la wàcc dafa wàcc màkk wàcc Médine léegi nag dinaa la waxal ñetti wax yi benn bu ci nekk lan mooy seen preuve suñ paree ma waxal la bi ci gën a wér première wax bi dafa am ni wax ni màkk la wàcc moom suratu Faatiha seen preuve mooy yonent bi salaa dafa wax ci xaddis bu wér nee julli munta wér sans Faatiha julli gu amul Faatiha julli googu wérul te boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy farataal julli boobu mi ngi ko fekk màkka gàddaayagul demagul Medine فلا كما سيد جولي صحابة كما سيد فلان دي جولي تجولي جوجو منول نياك سان فاتحة كونك فاتحة ما كلاواتي ما يصير بروميير برو نيارو لبروفي موي تبير القرآن يا الله دفع وخ ني ولا قد آتيناك سبعا من المثال manam yow yonentou bi sallallahu alayhi wasallam jox nañ la sab'an min al masan baatu sab'an min al masan yonentou bi neena moy fatiha kon yàlla dafa ne yonent bi jox naa la faatiha léegi aaya boobu noonu ak saar boobu mu nekk surtout xijri aaya bi yàlla di wax naan yow yonent bi jox nañ la saba min al masaani maanaam cest à di jox nañ la faatiha aaya boobu ak saar boobu mi ngi wàcc màkka kon nag faatiha màkk la wàcc ñoom lii mooy seen preuve ci ne faatiha màkk la wàcc seen preuve nag moo gën a wér te moo gën a dëggu ñaareelu preuve bi ñu wax ni Médine la wàcc ñoom dañuy wax ni saar bi Médine la wàcc ñoom lan mooy seen tegtal ñoom seen tegtal mooy xaddis yonent bi salaa sallam ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa toog jibril alayhi salaam ñëw dikkal ko ne ko xoolal ci kaw asamaan day am na benn bunt benn magasin boo xam ne mësul tijjeeku ba yàlla bind àdduna ba léegi mësul tijjeeku tey la mas tijjeeku lañ fa jële nag mësuñu ko jox kenn ku dul yow lañ fa jële jox la ko mooy faatixa ak fin wu baqara léegi nag ñooñu foofu lañ sukkandikoo ne kon faatixa mi ngi wàcc Médine parce que xaddis bi ak jibril bi ak circonstance bi ak jotaay bi Médine la woon bi si desit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dox na ba yàgg mu dégg benn baat ñu ni ko xoolal asamaan am na porte bu fa ubbeeku boo xam ne mosul ubbeeku jële nañ fa dara loo xam te ne mosuñu koo jox nit yow war lañ ko mas a jox muy faatixa te nee nañu ba mu doon dox ak ñu naan ko déglul boobu Médine la woon ñoo ñooñu foofu lañ sukkandiku ne kon saar bi Médine la wàcc benn bor am beneen borom xam-xam bu wax ne dafa wàcc Màkka wàcc Médine ñoom lan mooy seen preuve ñoom dañu wax ni ne alquran aaya mën na wàcc ñaari yoon ba ñetti yoon te du ci yàq dara mën na wàcc Màkka ñu di ko jullee mën na ñëw ba Médine mu wàcc fa ñoom lu tax ndax boo xoolee tey di nga gis message comme bu ma la doon jox misaal ci jamono mën naa jël message ma yónnee ko Moussa ma envoyé message bi Moussa ne ko waxal Babacar ne ko ñëw naa léegi bi ma ko envoyé message bi mu war a nekk le 20 avril ma envoyé ko ko mais ma réglé ci sama portable après 48 heures message bi dafay demaat ci Moussa le vingt le 21 le 22 message bi demaat ci Moussa ne ko waxal Babacar. ne ko ñëw naa léegi la 20 bi may envoyé message bi Moussa la 20 boobu mi ngi ko fekk dakaar mu liir koo gis ne Ousmane Ndiaye moo ma envoyé message maa ngi Dakar deux jours après Moussa jóge na Dakar dem Tamba ma réglé ci sama portable après 48 heures 3 jours après message bi ñëwaat ne ko waxal Babacar ne ko ñëw naa mu liiraat ne Ousmane Ndiaye moo ma envoyé message ne Babacar ñëw naa booba deux jours après mi ngi ko fekk Tamba. ñu ne kon message bi tàmbaala la wàcc parce que fa la sonné teng-teng Moussa liir ko fa ñii ne déedéet Dakar la wàcc ndax fa la njëkk a léegi nag loolu moo tax yenn si ay borom xam-xam wax ni Fatiha yàlla daf ko wàcce ñaari yoon daf ko wàcce Makka wàcce waat ko Médine euh, Fatiha bokk na ci saar yi nga xamante ni moo ëpp ay tur ci alquran moom Fatiha saar yi ëpp ay tur ci alxuraan wala tey boo jëloon alxuraan nga jël saar yi am na yenn saar yoo xam ci alxuraan benn tur lay am am yoo xam ne ñaari tur lay am am yoo xam ñetti tur lay am mais moom faatiha mooy saar bi nga xamante ni moo ëpp ay tur ci alxuraan ci saar yëpp euh, loolu lan lay tegtale mooy nit ku nekk sa daraja ak sa yëngatu ak fa nga toll ak la nga man ak la nga jëf ci la say tur di tegu xam nga ki juddu nekk liir ñu koy ngénte rend xar mi tudd ko maam Ousmane Ndiaye léegi moom mu daal di juddu ñu koy wooye maam Ousmane Ndiaye ñu gis ni juddu na ba génn àdduna amul xam-xam munta bay munul dawal oto baat bi neexul munul woy amul dara dara benn fonction bu mu mën def ci société bi dara dara ci Ousmane Ndiaye googu ñu koy wooye ba téeméer at ci lay dee waaye bu dee dafa juddu am xam-xam ñu ne ko professeur mu demaat ba yàgg nekk baykat ñu ne ko agriculture mu dem ba yàgg nekk defarkatu dàll ñu ne ko cordonnier mu dem ba yàgg nekk président ñu ne ko président mu dem ba yàgg mën a football ñu ne ko footballeur mu dem ba yàgg mën a tabax ñu ne ko maçon gis nga tur yu bari yooyu yëpp dafay wane ni kii man na lii boo ñëwee ci faatixa nag loolu daf koo dal faatixa dafa am ñaari xeeti tur dafa am tur yoo xamante ni loolu la ñuy wax asma taw xiif yi tur yi nga xamante ni moom la ko sharia tudde soit alquran tudde ko ko wala yonent bi salaa sallam tudde ko ko la ñuy wax asma tawqif yi bu doon ci nita mooy tur bi nga xamante ni moom lañ ko rendele gàttan am lu ñu wax asma ijtihaad yi mooy tur yi nga xamante ni nag ay boroomi xam-xam ñooy dem ba gis ni kii qualifié na lii ñu tudde ko ko tey man Ousmane Ndiaye suñu ma doon woowee footballeur ba may juddu di ñiy rendi xar ma kenn tudde kenn tudde ma footballeur parce que boobu mënumaa xam sax ba di ko dóor li tax ñu dem ba tudd ma footballeur ñoo dem ba gis ni mën naa football wala nangam wala caméraman ñu dem ba gis ni mën naa caméra loolu nag dafa am ci fatiha léegi euh, fatihatul kitab premier tur bi nga xam moom la gën a siiwe da nga xamante ni mooy tur bi gën a siiw ci moom mooy fatiha fatiha léegi dégg sañoon jàngal ma fii sóortu fatiha jàngal ma fii fatiha jàngal ma fii mooy premier turam léegi tur boobu di fatiha lan lay signifier ak ndax am na relation ak saar bi baatu fatiha mu ngi firi boo ko doon firi mu simple mooy caabi lu ubbi luy ubbi yoo xam dafay ubbee mi ngi jóge ci baatu fatih fatih ismu fail la fatih am taawu tënis muy fatihatu taa boobu sax mën na bañ a nekk taawu tënis mais mën na nekk taawul mubaalaga parce que dafa am taawu tënis taan buy wane ni jigéen la am taa boo day wone ni ki aay na lool ci mbir mi comme tay par exemple ma ni ah Cheikh Seydi El haji Malick al alim al allamatu gis nga al allamatu ta bobu du taawu tënis mais tawul mubalagha la xam-xamam moo ëpp doole bali insan ala nafsihi basira al insan ala nafsihi basiratun taa al insaan mudakkar waxul basir mais basiratun taa boobu taawul mubalagha la pour wone ni ki bu dee dafa euh, lu ñuy ubbee moo ci gën a gaaw kon baatu faatixatu taa boobu du taawu tënis parce que saar bi du jigéen mais taa boobu taawul mubaalaga la wane ni lépp luy faatix rek lépp luy ubbee faatixa moo ci gën lépp luy ubbee rek lépp luy caabi buy ubbi nit ci magasin yu koy jariñ digganteem ak boromam ci dundam faatixa ci gën a gaaw te moo ci gën a efficace kon boo doon firi faatixa da nga naan mooy caabi universel bi gën a gaaw gën a efficace mooy baatu faatixa ba relation la am ak saar bi ci ci ci ci ci ci ci nii rek relation bi ñu am mooy tey boo ubbee kaamil bi moom moo ubbi téere bi moo ubbi kaamil bi mooy première saar bi nga xam moom ngay njëkk a jàng ba pare doo ko dem boo doon julli tamit bala ngaa jàng alquran di jàng saar wala dara moom ngay njëkk a jàng te boo xoolee alquran nga xam ne moo gën a tedd si lu ñuy jàng moo ko ubbi julli moo gën a tedd ci jaamu yàlla yi ci mboolem lu ñu wax ci biir julli mboolem lu ñu mboolem julli moo gën a tedd liñ ci wax alquran si gën a tedd moom alquran ci boppam moo ko tijj muy faatiha euh, bi si mooy xam nga ubbeeku ñaar la am na loo xam da ngay ubbeeku ci fisik ak ubbeeku ci loo xam lu abstrait la du lu du lu concret lu mën a laal tey nit ki xolam mën na tëju ci jaamu yàlla nit ki xelam mën na tëju ci xalaat lu baax mais bu dee jàng faatiha day ubbi xolam ci leer yi nga xamanteni mom la yàlla di joxe xol bi meuna a ubbeeku mën koo taataan xol bu tëju day indi soxor ak kiñaan bu dee xel mi dafa tëju bu dee jàng faatixa xel mi day tijjeeku ci neex moo tax boo xoolee nit ki buñ ko yóbboo daara di ko jàngal liñ koy njëkk a jàngal mooy faatixa alphabet wu faatixa lañ koy njëkk a jàngal ba siin mimar ba mu jeex alhamdulilah liif laam xaa lonk miim deel su paree ñu jàngal ko bi asmi su paree alhamdu kon fatiha la ñu njëkk a installé ci ci ci xelu nit ki ak xolam pour xol bi mën a ubbeeku ba lépp luy mbaax mu mën koo nangu moom la ñu njëkk a installé ci xelam ba xel mi mën a ubbeeku ba lépp luy mbaax mu nangu ko moo tax gis nga julli boo nee allahu akbar allahu akbar moo la dugal si julli gi da nga ne allahu akbar ba dugg si julli gi rek sa xol war a ubbeeku ba nga mën a recevoir donné espace divin bi li yàllay joxe ci leeru julli pour nga mën a am leeru julli foog sa xol ubbeeku pour nga am leeru julli foog sa xel ubbeeku pour nga am leeru julli foog say cër ubbeeku nangoo jaamu yàlla léegi nag bi nga ne allahu akbar ba dugg si néegu julli nag li war a ubbi sa xel ubbi sa xol ubbi say bët ubbi say jër say cër ba ñu mën a ubbeeku ba mën a taataan leer yàlla yi ba mën a jaamu yàlla ni ko defee foog nga dugal caabi bi ubbi xel mi ak xol bi caabi jooju mooy lan mooy fatiha nga installé fatiha ba pare doog a rukoo doog a sujjoot doog a jàng saar doog a def lépp parce que boo installé wul fatiha du dem misaal ordinateur boo ko jëndee mu bees bala nga see mën a def dara da nga siy wàcc Windows ba pare tant que wàcce woo ci Windows mënoo see mënoo see am benn donnée mënoo see jariñu dara Windows bi nga siy wàccee nag ba pare nag ci ngay mën a am Facebook ci nga mën a am internet ci nga mën a am euh, yeneen ak yeneen ak yeneen kon tey nit ki bu doon appareil li mu war a njëkk a installé ci boppam Windows mu war a njëkk a ci xolam pour mën a recevoir données yàlla installé ko ci xelam pour mën a recevoir données yàlla mooy Fatiha loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa ne bépp julli bu amul Fatiha amul njëriñ amul njëriñ julli ga wérul loolu mooy baatu Fatiha dinañ ko tuddee tamit Quraanul Aziim maanaam alquran ju màgg ji alquran ju rëy ji lu tax parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tudde yonent bi sallallahu dafa toog ci jàkk ji am benn saxaaba bu ñëw kàbbar di julli yonent bi woo ko wuyuwu ko bi mu sëlmalee mu ñëw na yonent bi ah baal ma de bi ma doon woo dama doon julli yonent bi ne ko xanaa déggoo aay bi yàlla di wax naan yàlla ak yonent bi bu ñu la wooyee loo jàppoon bàyyi ko kon ndekete saxaab moom jàpp nañu bu nekkee si julli moo gën a for yonent bi woo ko yonent bi maa ngi koy corrigé wan ko ni julli gi maa la ko indil bu doon mën a doo ko def kon lépp loo mën a nekk bu yonent bi wootee rek yow bàyyi ko mu ne ko ah xamewuma ko woon noonu yonent bi ne ko li ma lay doye mooy bala ngaa génn si jàkka ji dinaa la wax lan mooy sab'ul masaan dinaa la wax lan moo gën a màgg ci alxuraan am lan moo gën a rëy ci alxuraan lan moo gën a tedd ci alxuraan lan mooy sab'ul masaan dinaa la ko wax mu ne ko waaw saxaabi neen ñu toog a toog a ba heure génn jot naka la yonent bi salaa sallam dem bay génn ma dox ndànk rek tatafu yére bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam yow de yaa ma waxoon ba la ñoo génn ci jàkk ji nga wax ma li gën a màgg ci alquran mu ne ko waaw mooy fatiha mooy fatihatul kitab kon fatiha lu ko ëpp njariñ nit mënu ko am bi su des it tudd nañ ko tudd nañ ko shaafiya bokk na ci turam yi shaafiya shafiya moy firi wéral waaw médicament bi wéral xam nga batu dawa sax moy firi médicament mais shaafiya moom mo ëpp doole médicament parce que bo né dawa moy médicament médicament man nga ko nandu def effet mais bu dé shaafiya nak moy force da ngay wër kon moy safara moy li wéral li wéral bépp xétu jangor bu mëna doon tudde nañ ko ko mom mom fatiha lutax ñu tudde ko moy ben sahaba dafa doon tukki mu ñëw ba guddee fenn di wut fu mu fanaan mu dem ba si ginnaaw dëkk ba tëdd foofu ñu tëdd ba guddi borom dëkk bi di yuuxu waa dëkk bi di yuuxu ñu ne lan la ñu ne borom dëkk bi jaan moo ko matt te ku ne xam na ni jaan dafa am benn virus bu si nekk boo xamante ni su yéegee ci sa bopp ba àgg si yuur gi da ngay dee te day dox ah ñu ne nañ xool kan moo ko mën a mocc kan moo ko mën a faj ñu ne am na ñu nu seen fële ñu xam ne ay arab lañ ñàkkul ne am nañ ay baat yu mën a wàcce jaan virisu jaan ñi daal di dem laaj ko ko mun leen ah kay mën naa ko ñu indi ko biñ ko indee mu commencé di jàng faatixa di jàng faatixa ba jaan ji sedd waa ji wér mu laaj ko li mu koy laaj ci ay gàtt ay xar ay bëy mu jox ko ko bi mu ñëwee nettali ko yonent bi salaa salaam yonent bi salaa ko ah ku la xamal ban expérience nga am ci jàng faatixa ci wàcce jaan mu ne ko yow laa dégg ne faatixa day saafara bépp jàngoro muy baatu shifa moo tax ñu tudd ko tudd nañ ko tamit baatu kaafiya kaafiya lan mooy kaafiya kaafiya mooy protection maanaam protection boo ko doon boo ko doon fii fili ci jamono mooy antivirus comme par exemple tey ñu ni ah fii kat am na benn virus comme corona bi corona am na virus ñu ne léegi boo solee sa masque nit ki bu ko amee bu sëqatee du ñëw ci yow kon masque bi mooy kaafiya maanaam cest moo dox sa diggante ba kii bi du am wala benn vaccin boo xam mooy tax doo ko am mu dalay protéger ci lool dina bokk na ci turu kaafiya loolu li la war a yàqal mi ngi ci mais boo ko jëfandikoo du la yàqal lu tax loolu ñu tudde ko mooy benn saxaaba la yonent bi sallallahu alayhi wasallam woon ci benn dëkk pour mu waar leen xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ay ambassadeur am yónni benn dëkk ne leen dem leen si waa dëkk bi ngeen leen man yonent laa dañu tuub yenn saa ñu nangu yenn saa ñu bañ bi mu yónnee ben sahaba te sayyid Hajj Maalik mi ngi ko netti ci xilaas zahab lillahi darru mujibin bi mu deme ci wa dëkk bobu ne len yaronte sallallahu salaa wasallam moma ma yónni nee ngeen ñëw tuup ndax mom yonent la ñi wo borom dëkk bi ne ko ah lo ci xalaat comme yaay suñu kilifa so ne waaw ñun ñep ñu tuup andam ak moom boo déet ñu bañ léegi nag bu njëkk borom dëkk day nekk intelligent intelligence day daw ci moom borom dëkk bi ne ko waaw yonent bee la yónni mu ne ko waaw mu ne ko waaw baax na comme yonent bee la yónni te ñun li jotoon jàng yëpp mooy yonent bu ko yàlla yónni day am kéemtaan day am miracle miracle bi moo koy justifié mooy tax ñu koo gëm te kaw na comme yow yow bi yónni te bu ñëwoon moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwaloon boppam dinañ ko laaj ne ko lan mooy sa miracle pour ñu mën laa gëm comme ñëwul na yow lañ ko yónni ndaw lu nekk dañ koy yéegal ci kam ñu yónni léegi dañoo bëgg nag nga wan ñu sa miracle buy tax ñun ñu gëm la ki yonentu saa sam yónni comme moom daraja yonent bi la yor daan ne leen wax leen ban miracle ngeen bëgg foofu la yonentu saa sam wuute ak yeneen yonent yi yeneen yonent yi ñoom suñ leen laajee miracle ñoom ñooy génne seen miracle bopp comme yonent yàlla Moussa bi ko Firaaw na ne lan mooy wane ni sa preuve yonent nga Moussa moo ke moo sànn yet bi Moussa Firaaw néew ko sànn yet bi moo sànn yet bi mu nekk jaan moo dugal loxoom génne mu weex kenn sant ko ko kon moom moo génne miracle yi donte miracle yonent la bi sallallahu ko waxé ne ko wan ñu lan moy sa miracle ci ne yalla lu yoon dafa daf leen ko délo ne seet leen lu leen neex ñom ñoo tok ba xaraat ne ko xaral wër wi lool mo dal sahaba bu sahaba mo itam wax ba dëkk bi ne leen seet leen lu leen neex rek wa dëkk bi ne ko ah ñun de fi poison poison bi gëna a ñun ñokay defar manam ñom wa dëkk bi ñoo mën créer ay virus mën nañoo créer virus bo xamanteni sama nañ ko sànni ci jawu ji ko noy dé mën nañ koo créer def ko ci ndox ko ko naan dé ñun loolu la ñu spécial dañ see aay virus bi gën a garaaw nag muy poison bi gën a garaaw ñu keree ko bu buñ ko xóolee def ko ci ndox waxuma la nga naan ko de mais boo tiimee euh, pot bi sax cinq minutes lañ la may ngi génn àdduna ndax nangu nga ñu jël virus boobu jox la ko nga naan bu dee bu dee bu dee mu nekk miracle mun leen waaw saxaaba ne leen waaw ñu jël kaasu ndox def ci virus boobu def ci poison bi jox ko mu naan ko dara dalu ko di len war di len war ba ngon jot mu and ak ñom ñepp indi ci yunus bi salaa salaam ba ko yonent bi salaa salaam laajee nga nan ko dafa ni suuratul faatixi laa si jàng mooy baatu kaafiya antivirus euh mom tamit bok na ci ay turam bari na buñ ko doon lim bo demee ci imam suyuti danaka indi na fa sax lu tolok 37 tur amna yenn téré yo xam bo fa démé da nga fa gis lu mek 100 tur yo xam indi nañ ko ci fatiha léegi faatiha moo nekk noonu bëri tur dafay wane ni mbir mi kat am na ay njëriñ moom saa suratul faatiha bokk na ci ngëneel yi ngëneel yi nga xamante ni bokk na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril nee na ko yàlla jox na la loo xamante ni mësuñu ko jox benn xeet muy faatiha ak jeexitalu baqara bi si desit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko jox naa la alquran ji gën a màgg jox la tamit sapa al masaani sapa al masaani mooy sapa mooy juróom-ñaari aaya masaani mooy lu ñuy def di ko defaat kon tey boo jëloon ngëneelu faatiha maanaam ngëneelu faatiha comme julli ni mel ci lislaam nga xamante ni mooy bopp lislaam nit ki bu ko bàyyee rek nekkatul jullit noonu la faatiha mel moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla di wax naan damaa xaaj julli ak sama jaam man ak sama jambi dañu wax dañu seddo julli yàlla neena na man ak jaam bu ndey julli dañ koy seddo amna parti bo xamni moko mom am lo xamni mako mom gis nga biñ koy sedd bi wax julli lan la wax qasamtu salata bayni wa bayna abdi séddale naa julli sama digante jaam su waxe alhamdulilah rabbil alamin gis nga waxul su rukkooyee waxul su sujote waxul su taxawé mais su ne alhamdulilah rabbil alamin kon ndekete julli limi for for yàlla tudde nako fatiha motax bo démé ci alquran parfois di nga gis batu julli day firi alquran yeen sa nga gis baatu fatiha wala alquran di firi julli waaw wala wala tajhar bi salatika baatu salat fofu qiraa firi limi firi moy am njàng lolou lépp limi muy tegtale mooy kon fatihatul kitab dara gën ko tedd ñu commencé ko nak a'udhu billahi minash shaitanir rajim bala ñu dugg sal bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ndax alquran dafa wax ni boy jàng alquran nanga ko tàmbalee ci audu billahi min ashaitan rajim lu tax ko koy tàmbalee parce que lépp lu amal njariñ nit iblis sheytaan nee na taxaw naa pour yàq loola te dara lu ëppal njëriñ nit jàng alquran amul moo tax nag kon li gën a gaaw ci iblis pour mu yàq ko mooy jàng alquran maanaam alquran iblis nee na yàlla lépp lu yàqal nit lépp luy jëriñ nit dinaa fexe ci yàq ko li jariñ nit nak li ci gëna gaaw gën see efficace moy alxuraan yàlla neena nak comme iblis neena lulay jariñ da la ko yakal kon fexel ba bala nga jàng alxuraan nga dégager iblis ci atmosphère bob ba pare do ko jàng alxuraan moy a'udhu billahi minash shaitani arrajim fi la yam bu ëllëgé na ñu dugg ci fatiha bi insha allah rabbi assalamu alaykum wa rahmatullahi taala